À un village de la commune de Malikunda dans le département de Mbour, des femmes comptent en grande partie maintenant sur la vente de coquillages. mo li dem geej ñu ami jeen nga xamne jigen bo yewon mu indi mu genné la 500 wala 1 million jox la ko nga dem liggéey dotul léegi xolal mool bu dem bu ay 100 et quelques de kilomètres te mëno sax am lo ñaar deureum yow jënd essence mba lo togg mba jën bu baax amul motax nak ñuy liggéey coquillage bi di koy jaay bu dé ñaar deureum ñu am ko ci bu dé ñett deureum ñu am ko dimbalé suñu njabot mo ñu taxay a yendu Le tourisme qui employait bon nombre d'entre elles traverse des moments difficiles sur la zone côtière de Mbour. domaine mi moo ñu doon jàppale ak club Arjana ba mu tëjee ba léegi dañoo tumuranke xam nga ne hôtel bu tëjee tax ñu nekk ay magum jëmm ñëw fii di lay suuf pour bëgg ci dara xam nga loolu da ngay metti na mais bu doon ne tey maa ngi ñeenti xale yu góor yo xamante tay ñu ngi liggéey xam nga duma tok fi. mais club Arjana tejna domaine tejna amuñu luñu ñu liggéey. Assise au milieu d'un amas de coquillages, Aram Diouf tient entre ses mains un tamis. C'est son principal outil de travail. Il sert à séparer les coquillages du sable. Pour elle, le travail est loin d'être aisé. sañoon ku do doo liggéey dafa metti ba pare di nga tok un mois wala une semaine wala deux semaines do jaay léegi say njaboot tok di la xaar day metti. Dans ce site de ramassage, plusieurs femmes venues de Nianing ou encore dans les villages environnants passent des longueurs de journée. xoolal 7 h du matin ba 7 h du soir lañ fiy jóge ñibbi.

bu dee 10 sarse nga fay ko 2000 mille léegi mu layal la ko teg yow itam ngay jaay coquillage bi par tame la qualité boo ci bëgg rek ak tamé. Cette diversité de coquillages s'exprime tant dans leur forme, leur taille que de leur couleur et les prix varient selon la catégorie de coquille. coquillage bi bii mooy garavaay bi bii mooy grain de riz bi bii la ñuy def ay pavé wala nga def ko ci coulage wala nga mun remplacer peinture parce que am na koy coquille mur. bële mooy coquillage bu dijj bi moom nga ko coquillage si biir néeg am na beneen ba ci topp mun nga koo def salle de bain mun nga koo def ci mun nga koo def fu neex mooy bële. waaw mat na kat tamit bii ak bële kee yar bokkul beneen bi ak bii bokkul ay tame lu bari la daal da ngay détaché rek qualité boo bëgg rek nga détaché ko waaw. bu nekk bokkul ak beneen bi prix aussi. déedéet bokkuñu prix ñu ngi commencé ci deux mille ba ci quatre mille Des clients viennent les chercher pour embellir les façades de leur maison ou de leur réceptif hôtelier. Souvent, je suis là, il y a 15 ans de cela, j'achète leurs produits parce que je vois qu'elles sont là, galérées, et n'empêche, elles ont toujours le courage de se battre là. Oui. Comme toute une femme brave, elles sont tellement braves. Et même si à chaque fois je passe là, même si j'ai pas envie d'acheter, j'achète parce que c'est pour les encourager. En ce mois consacré à la zone féminine et plus particulièrement la journée internationale instituée par l'ONU pour faire le point sur la condition de la femme, les ramasseuses de coquillages de Nyanning se rappellent au bon souvenir des pouvoirs publics.